salaamaaleykum mbokk yi xarit yi saa su ne ni nga ko bëggee ni laa koy defee fi lay xewee ci buzz naa la sa émission wane ma euh, ñëwaat na moo la ko waxee rek mooy saa su nekk tey damay invité artiste boo xamante tey bu ñëwee war na am lu mu wane gis ngeen ko tey mi ngi nii jàkkaarloog man tey sama invité il se nomme tout simplement Dimkon tey moom laa fi invité mu war maa wan lu bari ci li nga xamante ni tey moom moo di ci musique sénégalaise li nga xamante ni tey moom moo di carrière naa leen bàyyi ki moo di Dimkon mu daal di nuyoo ma daal di dugg ak moom ci waxtaan wi jaajëf junior ñoo ngi lay béggee di la siyaar bu baax a baax di siyaar aussi waa Carapide bu baax a baax xam nga di rafetlu bu baax seen seen seen seen invitation bi donc di saluer àdduna yëpp waa ah. xam nga rawatina waa Géejawaay xam nga ak waa Mbàkke Bool euh, sama town quoi. nuyoo bi gis naa nga nuyoo ba boole ci waa Géejawaay waa Mbàkke Bool lan moo waral Mbàkke Bool bi. waaw parce que Mbàkke Bool foofu laa juddoo foofu laa yaroo foofu laa màggee. et puis foofu laa jàngee euh, ba sama secondaire ci laa ñëw à géejawaay li waral Guédiawaye mooy tey su ma nekkee artiste tey c'est grâce à Guédiawaye parce que fi laa débuté sama carrière et puis ñoo ma jàppale di ma supporter tey ba ma agsi fii ma jot a agsi tey quoi. musique ni ñu koy waxee wax naa ko sànq nee naa musique dafa yaatu te li mu laaj tamit dafa bari bëggoon naa xam exactement pourquoi nga bàyyi fii lépp duggu ci musique. waaw parce que xam nga nit moom euh, yàlla moo lay tracer le destin parce que man d'une part euh, tey maa ngi nekk ci benn famille boo xamante ni mën naa ne man am naa benn oncle nag quoi Ndiaga Diop xam nga musicien la mu ngi évoluer en Allemagne mais sama famille côté kër papa man maa sopp dugg ci musique te mën naa ne sopp boobu noonu sax destin la quoi parce que gëmoon naa leneen ah dul musique mais xam nga yàlla daal mooy dogal xam nga mooy natt doomu aadama dara quoi nattoo ma musique xam nga. c'est ça quoi moo tax ma bàyyi lépp bi ma demee nag ba gis ci sama bopp xam ne musique bi war naa cee am lu ma lu ma ci andil euh, Sénégal ak àdduna donc ci laa bàyyi lépp nag xam nga carrément ñëw ñëw ci musique mais ne reste que ba léegi nii xam nga maa ngi ci étude yi quoi maa ngi jàng quand nga commencé musique. waaw j'ai débuté ma carrière 2004. Euh, 2004 ba tey. 2004 j'ai débuté. comme que Ambaké, Mbacké dama daan faral de zikaru laa jàngay xasida tout le temps donc moom ma permettre maanaam de facilité faciliter. bi donc dans ci groupe bi ñu comme que yow sa baat neex na donc yaay nekk suñu woykat donc à l'époque ci le ci le ci le icon lancé ici euh, au Sénégal et partout dans le monde donc je euh, ma jël ko def ko comme idole. parce que man damaa mës a nekk révolutionnaire xam nga dama dama gëm ku gëm ku gëm Afrique dama gëm ku gëm Sénégal donc moo tax bi ma bi ma jugee di dugg ci musique donc nag ma ne duma def kenn idole ku dul ay koon loolu sax moo waral xam nga ñu naan ma dim koon quoi ok. loolu bi. voilà <laughs> ok ñu ngi door a comprendre quoi ba tey ci musique euh, parce que dañ ne musique metti na métti goo xamante ne tey. yéen xam ngeen ci dara yéen ñi nga xamante ne yéen ñiy commencé mhm. ndax naka nga koy dundee ci métti googu noonu nga xamante ne début bi dafa métti euh, bu ci kanamee nee nañ da neex mais début bi actuellement day métti. waaw junior doguma la sax mais gis nga musique métit bi ci nekk foo ko natt ko parce que da ngay dem di demaale lu bëri parce que premièrement donc yow sa famille duñ la gaaw a comprendre si loolu parce que en général quoi pour ñu pour sa famille encourager la ci musique day difficile parce que ñi ci bëri ci ñi ci jitu ñoko xawa saltel té musique dafa nek lo xamanteni passion la comme football donc da ngay nek di jang sa jang wala nga nek di liggéey sa liggéey bo amé temps nga dem def sa sport musique non la mel da ngay nek ci li nga nek bo amé temps nga dem def sa musique comprendre nga deuxièmement aussi côté finance xam nga buñ la encourager wala nga def musique kon foofu kenn du génn xaalisam naan demal studio wala defal lii defal laaw pour nga teg teg ay ay ay ay ay programme ñaara ngi noonu ngay yaa ngi boole côté gars yi ngi lay xam nga reculer loo deuxièmement côté finance troisièmement da nga war a liggéey sa talent te talent mooy li gën a difficile ci artiste te pour nga liggéey ko il faut nga am benn tranquillité bi xam nga mais macha allah quoi parce que nit aussi lépp loo nekk gëm ko rek suñ borom dina la yombalal lu bari daal ba fur et ñuy dem xam nga famille bi ñëpp. comprendre ni que ni man musique bi passion la ci man defuma ko pour pour dara comprendre nga ben option le bon modèle jël boo xamante ni xam nga gis naa ci ne liggéey la xam nga gis ci aussi ne ne tamit yalla yàlla la. parce que ci cadre musique mën nga way way woo xamante ni mën dina gindi dina gindi ñu bari et puis yamuma tamit ci musique bi kese parce que sama koñ à chaque fois dans xool li nga xamante ni mon koy gangrené mon koy lutter donc ma fa doon def ay euh, journée pour lutter contre la drogue mm-hmm. ay consultation gratuite ay euh, don sur les daara donc ay conférence religieuse sax def naa ko sama biir koñ. loolu kan moo la ko xelal ba nga commencé ko def. waaw loolu xel bi du dara parce que tamit aussi boo nekkee jeune nga nekk ci koñ donc euh, da ngaa war di jariñ koñ bi. parce que jeunes yu bëri jóguñu pour def loolu ñoom si seen musique rek lañ nekk. waa c'est ça parce que xam nga tamit nit lépp loo nekk mun nga ci jaamu yàlla ah. hmm. et puis bu fekkee yow danga am ay rak da nga war a wane exemple bu rafet parce que bu fekkee yow boo jigéen di dem concert xale yi dañuy ànd ak yow. xam nga sa copain yi ànd ak yow sa wa ko ndila la xam nga donc yow tout temps da nga yow li ngay def donc ñom dañ ci wara gis sen bop voilà euh, ñu gis la nga génné ben single bo xamanteni clip nga ko actuellement mi ngi cartonné muy Katapiché. ñewal ma ci catapiché bop lan mo waral catapiché waaw catapiché euh, mën na ne liko waral euh, euh c'est simple parce que y avait un oncle quoi mom comédien la quoi xam nga mu comédien la de manière. tout le temps day bëgg di créer ay ay ay ay mots xam nga ñuy ñuy reetaan truc léegi mu ma benn instant su ma bëggee wax yow yow dim tegal caa ma dim andi andir caa ñu catapise am benn grand frère Ousmane Mbacké ne ma moo bi dafa kandang quoi. Mhm. lii boo ci créer sound dina am lu mu andi. Mhm. ma ne ko non grand pourtant wax nga dëgg de xam nga ma ma xalaat quoi ma ne actuellement ban musique moo ban ban ban couleur musicale moo gën a dox ma gis ni afrobeat bi la. ma ni waa afrobeat bi bu ma ko àndee du originalité bi dina des kon il faut ma def ci tama parce que sénégalais yi dañoo bëgg tama mhm. donc ci laa dem studio ñu ñu liggéey sound bi donc ma ñëw refrain bi ñëw ma tegu ci gis naa nii ngay doxee ni ngay waxee truc xam nga fur et à mesure may xam nga répété inspiration bi di ñëw ba saan bi noonu la noonu la taxawee quoi. ok comme dañ ne émission wane ma la te fii ku fi ñëw di nga am loo indaal loo xamante ne tey moom ngay wane kon du ma def lu dul bàyyi laa clip bu kat bi si seetaan ko ñëwaat ci plateau bi ci ñu dem. But me ya pone. baa ngi noonu ñu ànd seeg sama waa ji ma daal di koy laaj ay question ci euh, clip bi mu daan may répondre bro. Uh-huh. dama bëgg avant tout comme ni ko gars di defee bu ñu fi ñëwee. Uh-huh. mooy dañuy commenter seen clip ba pare balaa ñu dugg ci waxtaan bi. carrément ay ci clip baa ngi noonu yaa ngi noonu. ok fi benn jour la quoi ma dem ci benn centre commercial def samay petit achat donc ni ma yéegee ci kaw échangeur yi ma gis benn xale bu jigéen bu rafet donc xam nga. mu jommal ma na quoi parce que ku gis jinne ne jinne jommal na la donc nag ci laa ko gisee rek impressionné wu fi mag naa ko gis naa ni ngay doxee ak ni ngay waxee bëgg naa ñu catapiser quoi mais fekk si maag samay copains ñoo àndoon waa Devil Team fu ñuy dem tout le temps ñooy ànd ñoom it biñ gisee booy bi aussi gis ma may way automatiquement ñu commencé di ko feccal gis nga ñoo ngi def chorégraphe bi nii booy bi commencé di ma di ma bàyyi xel. wàcc nag wax moom song aha fajal ci lingam bege bom bom tëgga sa bom rang rang aya bimbam ne lepp kandang wata bam bam frogo ba fay xasan man gis na ni ngay duxe yow ni ngay waxe yow de nga rafet kaar bëgg naa ñëw katapise suma yàbboone na xale bi gaañ bëgg gis nga fii mu ngi woo copine mi quoi ñu leen xam nga ñëw leen ñu catapisé mu leen texto nii bëgg naa ñu catapisé ñu catapisé ñu catapisé ñu catapisé bëgg naa ñëw catapisé. kati ñëwal ma si tournage bi tuuti. waaw waaw tournage bi fii ñoo ngi ko defee actuellement ñoo ngi euh, hôtel Lagon. Mhm. donc maa ngi leen remercier bu baax a baax xam nga de passage ci euh, facilité bi ñu def fii moom. 4C euh, euh, la centre commercial. aussi ñoom tamit ñoo ngi leen di remercier ci yombal bi ñu yombal xam nga job bi xam nga franchement kontaan nañ si ñoom bu baax a baax. voilà gis nga fii ba tey ñu ngi hôtel Lagon ak gars yi ak benn broda maam As xam nga ak gars yëpp war a jëbal si team ñoom xaaf xam nga ñoom jaara ñoom ñëpp a ngi si biir voilà gis nga. ñoo jàpp ji voilà c'est ça. ñu catapissé <laughs> kon nañ catapissé ñu ñëpp quoi. voilà gis nga. voilà euh, ba tey mi ngi noonu seetaan nañ clip bi dañuy jóge ci clip bi nag daal di dal ci bëggoon naa xam tamit yow ban façon musique ngay def parce que actuellement catapissé bi nga lancé. Uh-huh. mi ngi dem. Mm-hmm. te euh, catapissé bi. Mm-hmm. instrument coupé décalé. Mm-hmm. mais léegi yow man bëggoon naa xam exactement ban façon euh, musique ngay def. Uh-huh. waaw man na mën naa ne limité wu bopp ci dara ah. parce que man musique laay def sama base hip hop la mais tay di musique laay def limité ma sama bop parce que di nga tey di nga toll ci ben niveau bo xamanteni ni di facilité donc pour meuna way lu la neex surtout boo nekkee chanteur tay di fo mo fëgg rek damay wuy même mbalax buñ ñu ma ci woyee damay ñew def def mbalax parce que sama talent may na ma kon donc su ma limité sama bop rek donc du sama avantage quoi franchement ok. wane ma la wax. Mhm. tay dama bëgg nga acapella man dama ko won man mais sa fans yi gaay yi nga xamantene ñi ngi yow ñom nga koy wan ay ci acapella bi ma dégg. waaw bima leen jox moy single bi may waaj a génnewaat ni diko ko clipé moy jigéen ñi. man suma xel ma ngi ci yeen ku leen di fitnal di du ci ti yeen nañu jural suni doom. ba lu ñu yor yen a ko moom su ngeen bëggoon bi ñu dem ci asamaan ñu jëli ñu jox leen ngir bégal leen su ngeen bëggoon ur jàmma ñu dugg ci suuf see ñu jëli ko ñu jox leen ngir màggal leen ma nangu naa parité ja nangu naa émancipé ma nangu naa ni jigéen ñi ñoom ñoo yore réew mi. yeah nice d'habitude euh, ku fi ñëw damay tànn son yoo xamante ne tey euh, man maay koy tànnal sama bopp mu waxtaan seeg yow donc ma choisir woon quelques son yoo xamante ne tey euh, mën naa ne yow yaa ko son bi mi ngi tudd naan bul. bul découragé découragé dim kan dim kan bul ma sa découragé yàgg yàgg dina baax dim kan Mr. Dim Khan bul ma sa découragé yàgg yàgg dina baax man be my bi door, then you never want to ti dem I hear my sound di bam bu jaaxal leen may buuru aaron bi nga jëwee sedd leen li may def dama ko mën boole ci bëri fem sama sound dina dox di ko They take kaaw te jéggi frontière not laaw ba foul. My yàgg job, jóg gëm ni yoonu ndaw di gaaw man fu ma dem bàyyi fa ba chauffeur di gën di laaw doo ma gën a killing ndax maa up ëpp feeling Can I take a die, la biling feeling, te maa la ëpp job, gën a pity di ring doomu Mbàkke géej gi wéy fii ba nga tuddee waaw c'est ça parce que parce que bul découragé parce que sànq yaa ngi koy wax musique dafa met des fois da ngay am foo nekk xam nga di jóg ñu bëri na la non da ngay sonn kii day sonn mais du dem dafa am un sama benn gain daf ma woo ma mu ne ma daam lu ma la bëgg dénk damaa bëgg musique bi nga nekk ñi nga góorgóorlu ci parce que damaa togg ak ñu bëri ñoo xamante ni ñu la jege la ñu ne yow da ngay sonn mais mais doo dem bugguma yàgg na nag bi ñu ko waxee mais bëgguma la ko woon wax mais dama lay ñaax rek góor góorgóorlu xam nga te macha allah booba léegi suñu borom xam nga moo ñuy defal tawféex comprendre nga moo tax ma ni my Be sugar door Then you never want to ti teen I hear my sound defam bu jaaxal leen may pour R&B nga jëwee sedd leen li may def dama ko mën boole ci bëri fem sama sound dina dox din ko dégg ci kaw te jéggi frontière dina laaw ba My ma yàgg a job gëm ni yoonu ndaw du gaaw man fu ma dem bàyyi fa ba chauffeur di gaaw boo joué rek instrument uh, traditionnel dina ci dugg da ciy dugg waaw pour andi originalité bi ok ok voilà ma ñëwaat ci beneen son muy lan Bamba woote na ah. waaw lan moo waral nga jiyee son boobu Bamba woote na waaw Bamba woote na mën naa ne ci cadre màggal lay wax quoi parce que ñun tey jii man sëñ Tuubaa lañ ma tuddee te mën naa ne li ma nekk nii di ci jëngu muy avancé ku tedd moo ci teg loxoom kon donc fépp fu ñu dem dañ koy fësal fépp fu ñu taxaw tamit dañ ko fay dañ ko fay teewal récemment sànq maa ngi def euh, émission ci benn rajo dama pare ay ay ma ay ay kilifa ñoo ma woo ne ma na nga xam ne li ngay def nii maanaam du sa coobare mission la kon na ko gëm te nga fësal ku tedd ki bu baax a baax te ba ba ñuy faatu fu ñu ci nekk dañ koy wane te dañ koy fësal ndax sunu mission la bokk moo tax maa ngi naan barki maam Cheikh Ibra Fall may sa bi kumba Fall so demee ba màggal xam Sëriñ Bamba mi ku mu doon dem na wiir mi dem na Mayumbe jaar ci géej gi daan fu seytaan ne ki fa mu jaar ñëpp jaaroon dañu ree xar nga baax Moodu Bamba Mbàkke xottu leen <laughs> Dimgon. li ñu cëraloon ci waxtu mu ngi jeex. dëgg la xam naa ne yow moom man a yow suñu jàkkaarloo moom. xaabaabale rek suba lañ jëm. maa la wax loolu voilà donc avant may tëj émission bi tam bëggoon naa xam sa relation ak waa Guédiawaye yi nga xamante ne tey ñoom ñoo lay jàppale ci lépp loo taxaw. Uh-huh. waaw nice ah franchement Guédiawaye mën naa ne sama cadre de musique ñoom la quoi ba fi ñu toll nii ñoom la. Guédiawaye cat ba cat. aw ma xaaj ak seen franchement parlant ñëpp dañ may jàppale su may teg programme du ma sonn su may def clip du ma sonn des fois damay soxla yëre sax dugg dugg ci benn shop. cadre émission wala dara dañ koy dañ koy taxañ jox mako barki mam Cheikh Rafal donc ku ci nek xam nga xam nga sa bop xam nga ma ngi lay ñaanal ci barki Serigne Touba sama yeen wa waa way lepp lo leen bëgg rek yàlla leen ko Serigne Touba yombalal ak wa Mbacke Bawal c'est ça nice. looy tëjee émission bi. wa li koy tejé aussi moy xam nga tamit ñun ay doomu adama lañ te aussi tôt ou tard dañ fi juggé motax sa su nek rek nañuy rafetal. di góorgóorlu di jaamu yàlla parce que dara saxu lépp loo fi gis rek fi lañ koy bàyyi lu mu metti metti metti metti metti bien vrai que ay jeunes lañ des fois ñu def loo xamante ni xam nga dafay jéggi yoon mais nañuy góorgóorlu di jaamu yàlla fonk suñuy ñaari waajur ñu jàppante bëggante loolu buñ ko defee rek macha allah luñ bëgg yëpp suñu borom dinañu ko yombalal quoi. ok di remercier aussi sama staff ku mel ni As Diakhoumpa Ousmane xam nga Adam ak Cheikh Mbacke Diouf sama grand frère Pape Omar Diouf depuis Thiès Baylaat joojoo ak kon Dimkon family Mbacke Dimkon family Guédiawaye Thiès deux boulangeries xam nga ak États-Unis gars France xam nga aboori jaar gars maa ngi leen di siyaar yéen ñëpp di leen jaajëfal di leen remercier taxawaay bi xam nga rafet na yàlla na leen ko suñu borom delloo xam nga di remercier aussi sama yaay di remercier Junior parce que yow quelqu'un nga boo xamante ni émission kese boole ñu xam nga da nga yàgg a dugal sa loxo. xam nga di remercier aussi waa émission Car Rapide sans sans oublier sama team waa Devils xam nga gis nga ñoo jàpp ci clip bi ñoom tamit ok merci beaucoup Junior ñu lay jaajëf salaam ok jaajëf voilà seen émission la woon wane ma ak dim kon gis ngeen ko saa nekk ni ma la koy waxee fii ku fi ñëw rek di nga am loo fi wane yow mi nga xamante ne tamit bëgg ngaa wane sa bopp jaaral parce que émission bi seen émission yëpp ñëpp la di leen jox dig dajee beneen yoon fi lay xewee ci buzz point sn